بعد العزبلاء وبعد البسملاء وبعد الحمدلاء وبعد الحوقلاء آه، السلام عليكم مين في من بكي طالبيين خم دينا نك بتمريو بتب سنغال خم تبير أفريقيا ولا أوروبا ولا آسيا ولا إتازوني ولا فما ندون فين ما نك تي أدنى بي من سين بكم طالبي سين بكم بامبيست ما لين دي مجال سين برينايش seeni signature waaw ci turu jërëjëfe Serigne Touba waaw ndax trois millions laa ci bëgg te maa ngi ko soxla le vingt deux décembre su ngeen déggee ma ne le vingt deux chiffre bi maanaam vingt deux day Mbàkke moo tax waaw te la vingt deux laa bëgg a jot ci trois millions signature yi waaw hmm. un million laa waxoon xale yi demoon nañ ba koy boucler waaye maa ko yokk waaw maa ko yokk moo tax sama mbokki talib yi nga xamante ne bi di nga nekk à travers le monde dans les cinq continents ma leen di may sàkku ci ñoom di leen ma jël seen parrainage waaw ku ci ne parrainé woon keneen itam bay boo nga bàyyi ko te parrainé ma man ngir jërëjëfe Serigne Touba léegi nag euh, bu ngeen mën ngeen ko envoyé ci kara point com ko def kara point com rek man ko cee envoyé bu ko defee nañ ci jot waaw loolu daal euh, ci sama diggante yéen ak jërëjëfe Serigne Touba moo tax ma leen di ma jàll seen parrainage seen signature tedd ki de moom xam na lépp waaw ku tedd ki xam na lépp li nu tax a jóg daal xam na ko te nit defe naa ne noo bokk lu nuy yëg waaw noo bokk itam fu nu jëm kon wasalaamu ala man ittabaha al huda jërëjëf